d'abord ngeen permettre ma ma naxarlu li nga xamni jot na fee am gannaaw buñ ko naxarlo ñu yobante suñu njaal famille bi di len massaw di len wax ni ñu ngi sigil digalé di ñaan yalla ki fi joggé yalla téro ko sa àjjana yi gën kawe. ki fi joggé muy Mariama Sagna madame Sonko dafa nekkon ben membre bu actif ci bir parti bi nga xamni moy pasteur Ousmane Sonko jité ko.

moom dem na ba fentalon ben way bu wax bu rafet témoignage bu rafet don ko waxal Ousmane Sonko te jamono jooju xamul won ni 30 minutes après eh, dinañ jël bakanam ci anam yoo xam te anam yu ñaaw la. Euh, gannaaw lolu bu mu wesso tamit bañ yëgee mbir mi effectivement dégg nañ effectivement ki ko wala ñiko ko ci biir kërëm nañ ko faté te bañ koy faat fe ngi ak jamono ji nga xamni mo ngi yor ay andi won ay bagage yi nga xam ci biir meeting bi la nekkone Euh, notamment salon bi nga xamni sax mom la déménager woon yóbbu ko ci meeting bi pour recevoir les officiels d'ailleurs ba mu ñëwee di ko di ko kii si lañ ni ci jamono yoju ci lañ ko faar ci jamono ju anam bu ñaawa a ñaawa ñaaw a ñaaw te tamit day gëna indi ben doute ak ben trouble bi nga xamni amna ci contexte boo xamante yeen yéen ñëpp yëg ngeen Ousmane Sonko il fait l'objet d'attaque wa parti Pastef ñom ñëpp ñu ngi nekk l'objet de de cible et d'attaque yoo xamante ni teguñu ko ci lenn je pense que dans un passé très récent avant la fête de la Tamkharit, yëgoon ngeen ne ay way tak der demone nañ ci biir partem di mel dem ci biir këru ndayam bu jigen ndayam en Casamance pour di demander ci lo xam ni seen yoon nekku si waruñu ko demander. te lool bam amé amna sax ñu jéem a mais après la vérité ñëpp xam nañ ko parce que effectivement on s'est rendu compte que ñi fa demone ay tak der nañ te ndax nguur mo leen yoni wala ay way politique mo leen yoni ba tay ñu ngi xaar ñooñu clarifier loolu. ba ci loolu jógee tamit gis ngeen tamit contexte bi tamit gis ngeen Ousmane Sonko fi ke ñen ñi wote mu woone ay këru diine nañ wala ñen ñi mbëboo ay nit musique nitu art nañ ñu ngi taxaw diko accuser diko ak diko diko attaquer sans fondement les états des attaques viennent de partout mais mom mu ngi ànd ak dal ànd ak sérénité loolu yëngalu ko yëngalul tamit ñi nga xamni ñom la Ousmane Sonko mais tamit bu li ñëwé dolé su kasi ah da ce cas dañ nan euh amna lu lu lu lu lu lerrul amna lu lerrul loolu motax d'ailleurs mani dafa jot pour ñu leeral mbir mi parce que au-delà de la famille qui a perdu un des leurs au-delà de son époux son mari éploré il y a également un c'est un crime lâche et crapuleux qui a été commis devant ses enfants et d'ailleurs lool motax ñu gën ko ñaawlu ben doomam sax il paraît que moy yuuxut fekk na ba nga xamni mom lañuy la ñuy def ñaawte bañ koy def yaayam légui nak dégg nañ ni amna kuñu

ndaw si fi tamit c'était pas n'importe qui à Kermassar, c'est une femme qui faisait de la mobilisation pour le parti Passif. dès l'instant c'est dans un contexte où le parti Passif dérange c'est pour cette raison que d'ailleurs ñu wax ñun intérêt pour ce que mbir mi Nous ñu xam mobile bi et également pour que ceci soit fait et que la loi soit appliquée sera appliquée dans toute sa rigueur C'est ce que nous xaar loolu moo ba mbir mi famille bi ak Ousmane Sonko parti Passif a constitué un pool d'avocats

ak gannaaw yalla mom ak ñeneen ñi mu si àndaloon ñoom ñoo tax kon nek na nit ko xamanteni ni ku fassone la ci mbiru parti bi te également ku nit ñi top la fi ci biir Kër Massar maintenant li tax mu am ñun lol loolu ñu lang notre langue au chat te dinañ ka top nak ba fu mu yam ba fu mbaxane doone ben dinañ top ba xam ñi ko def ñen mo leen yoni bu fekke am na ñu leen yoni li ko wundu bu xey am na tamit ñu xam lepp ba nga xam ni demé que nul n'en ignore que demé également que ñi nga xam ni ñom la seeni i xonku